kon daanu dellusi ci Sëriñ Tuuba ni mu fonk yent xam nga numéro 4 la woon ci bi ñuy woo sëriñ si moo noo nekkoon numéro 4 bi colonialiste yi woo sëriñ si mooy numéro 4 te kenn ña ña ña bañ muy ñett ña rey nañu leen moom may numéro kat gantu gam gantu won kon bu Senegal libéré bay am indépendance bay an indépendance numéro 4 mo libéré senegal ndax 4 la tubaab bi bañon mom la bëggoon mom rek ku gantu kon nak luñu am numéro 4 leen ko bay amna firnde sax ndax rew mi ñu ngi am indépendance la 20 août ah lu waral ñu da toxal ko ba indi ko quatrième mois ah loola baatin la boo xam ne bi gouvernement bi xamuñu woon loolu naaluñu ko woon it pour numéro 4 bi leen libéré moo tax feetu indépendance gi ñu indi ko 4 4 avril ndax 4 numéro 4 leen libéré. te kenn ku ne xam na ni 4 avril amuñu ci indépendance le 20 août ci lañu am indépendance ci Sénégal di Modibo Keïta ak Mamadou Dia signé accord ya ca euh, ca ca ca Ndar gouverneur jox leen jox leen indépendance su réew kon bu ñu demee ba wëlbatiku ba indi ko la 4 avril du seen coobare du seen xam-xam. li leen numéro 4 libéré moo tax feetu indépendance bi ñu indi ko la 4 avril muy ñeenti fan ci avril waaw muy ñeenti fan ci avril avril xam ngeen kenn ku ne ah ku ne kenn ku ne xam na ne mooy ñeenteel bi weer te amuñu indépendance ci ñeenteel bi weer noo ngi am indépendance ci juróom juróom ñetteel bi weer la ko indi ci ñeenteel bi weer mooy Serigne Touba bi mu sancee dëkk bi ci wàllu développement économique daara yi mu wut ñeenti daara la ko def loolu moo tax indépendance réew mi di la quatre nekk ci numéro quatre nekk ci quatrième mois kon Serigne Touba moo libéré réew mi ci wàllu indépendance. Euh, science euh, euh, euh, politique maanaam économique réew mi itam daaraam yooyee mu ko sanc moo sanc ndax réew mi lu dul mbay amuñu ko kon nag ginnaaw moo développé mbay te yenti daara yooyu la jëkk sos ci àddina kon ñeenteel bi weer yi nga xam ne moom lañuy def feetu indépendance bi mooy indépendance économique ngir ñeenti daara yooyee sëñ bi di ko sos loolu moo tax ñeenteel bi weer mu doon loolu ñeenti fan yi mooy numéro 4 ba mu doonoon waaw kon loolu euh, leer na